Lesson 9 Leave Taking Expressions. Ci jàmm. Goodbye. Ba beneen yoon. See you. Yendul ak jàmm. Have a good day. Fanaanal ak jàmm. Have a good night. Nu fanaan ak jàmm. May we have a good night. Ci jàmm. Stay in peace. Amen. Ba ëllëg ci suba. See you in the morning. Ba ngoon. See you in the afternoon. Ba booru bëccëg. See you around noon. Ba guddi. See you in the evening. Ba ëllëg. See you tomorrow. Ba ci kanam. See you soon. Ba ci fan See you later.